ba ca biti réew ku ni xam ne ne nag ñaari fan yi li nit ñi di waxtaanee du lenn lu dul vidéo boobu euh, mu di vidéo bu Adamo Boss Day Negri ñu dal di gis ca boobule vidéo euh, benn waay buy jëflanteek benn tubaab maanaam góor ak góor benn xale bu góor buy wuyoo Malick nekk ca tugal di ab sénégalais moom nag waxoon ne ne yoon vidéo yu Adamo yoo xam ne vidéo bu mu doon jëflante ab tubaab la moom Adamo moom ak góor jigéen la la ndaka noonu ñu daldi di gis ay nataal ay photo ak quelques vidéos yo xamné daldi nañu koy partager ci réseau yi bobu le bëss mom Adamo mi waral coow li def na ab live ci lii la di Instagram am TikTok doon démentir kàddu yooyu nga xam ne Malick yëkkati na ko nam ko démentir nag du nenn lu dul daal di futteeku ba set wane ay awraam di wax ne awra yu ñu gis ci boobule vidéo ak waajooju du moom ndax ay awram ak awray waajooju tolloowul wala sax am nañu différence ñenn ñi jàpp ne rek moom Adamo moom la ndax li ñu gis ci vidéo boobule ak Adamo amul benn différence. waaye moom dafa gis ne rek noonu la waroon mën a weddee comme weddi du ragal dindi tuuma la mu dal di futteeku ba set cena mu futteekoo it ñenn ñi ñaawlu nañu ko torop ñenn ñi gis ne ah, moom moo ah, fi mu jëm ak sénégalais yi àgg guñu fa ndax moom à chaque rek mi ngi def loo xam ne war naa mën a taal réew mi kenn nawloowu ko ba tax na moom dafay yàq sax ndaw ñi ñenn ngi di sampab laaj lan moo war a mën a tax sénégalais yi mënuñoo zappe kii di ndax li muy wax jariñul benn yoon sénégalais yi lu dul di xaw suturaay jàmbur yi ak di wax loo xam ne dafay euh, dal di euh, andi li nga xam ne moom moo di ay jafe-jafe ci biir euh, réew mi ñu gis ne nag moom aadama ba mu jugee ca loolu vidéo bi lu ko métti la dëgg laam du dëgg moom la am du moom waaye nataal bi nga xam ne moom la ñu gis ci uh, biir vidéo boobu waroowul benn yoon ak ki nga xam ne moom moo di Adamo uh, ginnaaw loolu itam dal dinay dem porter plainte ki nga xam ne moom moo di uh, maalik ndax nee na Malick dafa dal di ci ay tuuma yu rëy teg ko ci kawam ba tax na daal dana ko yóbbu ci yoon yoon atte leen ay kilifa yu ci biir réew mi ñoom nee nañ mënuñoo comprendre lan moo war mën a tax Adamo di wax ci nit ñi te kenn du wax ci moom ba tax mu bëgg a jël doomu jàmbur boobu dal di koy euh, sacrifier ay menaces yoo xam ne def na ko jëmale ko ci Malick nee na dana ko nëbb jant bi ñu dem fa mbaxana doone benn ñu àtte leen ndax yi lay tuuma yu rëy ana lan moo war a mën a tax mu yëkkati ko teg ko ci kawam bam ci noppe itam daal dunay balu ak sénégalais yépp ndax li nga xam ne def mu di ab vidéo boo xam ne ma ngi ca def awray nen di wane li nga xam ne moom moo di ay sexam ne daf doon wax ne sexe yooyu uute na ak sexe yu ñu gis ci vidéo yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Faramareen di waa Ramdan ñoom lay baalu balu ak koko jiite di Wally Seck ndax waruñu ko woon mën a gis ci woowulee anam waaye itam lum ci mënti doon moom Adamo nee na yëf yi comme mu ngi ci kanamu yoon dañ ko attee moom la am du moom euh, li nga xam ne nag moom moo di Adamo ñenn ci sénégalais yi nee nañ jaratu fi dara ndax bu ñu demee ba doon ko gis moom muy partage awra jàmbur yi moom moo génneel boppam awraam loolu ndaka la ñu ko mën a tënkee wala ndaka lañu ko mën a analyser bokk na ci pawlis mbay mi nga xam ne digganteem ak kile di Adamo safara ak caas la dañuy ànd tey suba ñu tàqalikoo Pawlish mbay nee na Adamo ni mu doon def bay partager vidéo yi jàmbur yi ci euh, site prono yi ak li nga xam ne moom moo di réseau yi na def ba dugal fa boppam ndax utewul dara ak ñi nga xam ne ñoom la doon partager seen ay awra naam ñooñu sax ay nit ñoo jël yooyu la vidéo jox ko Adamo defuñu ko ci seen coobare waaye moom moo xawi euh, suturaas euh, boppam jimboor yi itam ndaka noonu lu mel noonu la wax mu mel ni yàlla tey jii daal dafay atte xaarul benn yoon ëllëg ab li Pawes Mbaye wax yoor na whatsapp yor na sinap yor na lépp loo xam ne rekk nit ñaa ngi koy jëfandikoo waaye ñu daal di gis itam ci boobule euh, coow ñi nga xam ne ñoom ñoo di Serigne su ndaw si laata euh, coowal Adamo di am ca plateau confrontation bi amoon 2STV ci samedi bi ñu weesu ki nga xam ne moo di féticheur boobu di Simbo doon menacé Adamo ne bu génnee euh, wax ci li nga xam ne moom moo di moom rek dana ko yàq euh, ba dootul jarate dara euh, ci réew mi wala sax fépp foo xam ne rek génneeti nañu fa nataalab Adamo kenn dootu ko faale kenn dootul wax jëmale ci ay waxam ca ëllëg sañu gis moom Adamo daal di génn saaga Simbo ba mu tooy xipp kunkande ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ci plateau boobu ñenn ñi gis ne ay kilifa diine yu ci biir réew mi ku ci mel ni oustaz Pape Anne oustaz du Fall ak yeneen kilifa yu nga xam ne mu aada moo yëkkati ay kàddu yu ñaaw rek jëmale ko ci ñoom ak ñooñu moo leen dal coowal Adamo lii fan lay mujjee dañuy ànd ak yéen di leen wax ngeen abonné activer seen i de notification ngir ngeen mën am lépp loo xam ne rek moom moo di ab xibaar bu tukkee ci loolu la coow ginnaaw Adamo porté na plainte ndaw li la di malik li lañ leen ci coowal Adamo di leen wax ne leen fii lay lépp yi xewee dinañ àndaat ak yéen andil leneen ci leneen lu gën a yees ci bi lépp xibaar mbokk yi xarit yi di leen ñaanal kenn dalu